min laa baax ma teg rax mi ñàkk moroom du kenn kenn du moom wax tàmbale ma wax dëgg la musulu saytaan Seex Murtala Mbàkke la moom Seex Mustafa Fàllilu waram tu moo tax ma ñëw di wayaat way wi ku am sallallahu man de bëgg naa la li waji laayi xaalixina Seex Bamba Seex Fallu ak Seex Mustafa Falliloo gi ca lala man xam naa ne kenn gënu la gaynde fi nekkoon ba dem jur gaynde bàyyi ko fi gii gaynde laa gis mu laa biir lool du fàdd mala yaa neex a xam naqaree xam yow yaara tax te ñagas yow yaa wa yof toyu yaa dis gan kenn yabu la jub nga jubbal nga mbooloo mi topp réeroo bi laay réeraloo kenn ko jub bëgg murit yi laayeen yi tiijaan xaadir ak ña amul tariixa ñépp la naw naw kenn siku la fajkaatu aajo nga neex ngaa gis ne doo tëju kenn ku ñëw sa kër bu nuyoo nga fay ko miin nañu la man de bëgg naa la li waji laayi xaalixinaa ak jëmmi seexu xadim gëm naa ni kenn bañu la man de bëgg لوجه الله خالقنا عجم شيخ الخديم léegi dañuy delluwaat tamit di gën a amaat jàmm baax a baax a baax. danga waroon jafe lool far yomb ñëpp la euh, xam. da nga ci biir fi nga xam ne mu di salaam Vision Salam Vision képp ku ko dégg mooy jàmm ak salaam. tey ji ñu fekk leen tey ci biir jumaa ji tey nag suñu yaay boyte la ñëw euh, moo la seet woon tey ji ñëw tey ji taxawaay bi nga ne tey ji mu ngi koy def tey ci digg Pikine naka ngeen ko gisee. Ah, alhamdulilah ngi sant yàlla bu baax di jul ci yonent bi di jaar ci fal suñu jëwriñ sëñ Fallou Mbacké ñun nag ñu am lu di ko gërëm di ko sant parce que booy yëkkati dara di ko def ci doomu aadama doo leelu ginnaaw mu yàlla dalay jëmale kanam lii mu sas bi mu sumb nag yàlla na ko ci yàlla jëfal barke ak xéewal te yéen ñëpp ñu teew ko ay déwén yu bëree bëree bëri parce que àddina nii rek la koo tane sa morom da koy dimbale du rëy wala pour wane wu pour kii da koy def ngir yàlla booy def ngir yàlla nag yàlla dina defal ngir yàlla kon nag yal na leen yàlla jàppale liggéey bi mu sumb yal na ko ci yàlla defal xéewal ak barke ñu téew ko ay téew yu bare bare mu yàgg koo def ba mu sut lim ci yaakaaroon yëpp yàlla gën ko ko fulandil waaw man nag da waar man mun wax ci lu dul lu dul kii daal daal kontaan nañu. foofu foofu noonu balaa ngaa tàggatoo tuuti dafa am ci lu ndaw loo xam ne dama ca bëggoon xus ak yow rek même bu nekkee benn kàddu sax a ñaari kàddu sax ñu am loo xam dañ ko mën a taataan ak tuuti tey ji ci li nga xamante ni tey da koy def tey bu fekkoon ne tey ji euh, defin bi tey da ko doon tey ci bunt këram wala tey mu def ko ci digg mbedd ma am ñoo xamante ne fa la koy yamale mais tey ji moom bi mu njëkkee taxaw dane day njëkk xalaat daara ji njëkk xalaat jumaa ji njëkk xalaat imaam yi taxawaay bi ak toolaay bi boo ko déggee rek yow sa xel ci lan la war a dem doomu aadama di nit simple simple yàlla wàcc ñu ci suuf pour ñu jaamu ko bu ko def pour boo ko wàccee di ko boo la wàccee suuf pour nga jaamu ko da ko war a jaamu ci ni mu ko bëggee lii mu def ci daara ji lu war la lu ko war la parce que imam buñ jaaxlee ci imam la ñuy dem bu ñuy tudd ci imam la ñuy dem lu ñuy def dañuy jiital imam te daara alxuraan moom bu ñu nee daara rek lay jeexalee parce que alxuraan bi mu wax te moom day ñëw fii di jokkonte kii ñu ñëpp ñu xam ko kon loo xam ne kon lu ko war la waaw lu ko war la kon bu ko defee woon ci koñam dina am dina am porté mais moom ni mu ko gën yaakaar yaakaaree pour mu gën a am porté fii mu doon ñëw di gis xale yi ak daara ji ni mu mel mu am seen yéene ak yéen kii mu def ko ci kon loolu rek la yal na ko yàlla dimbale kontaan rek ndax daara ji moom dama fi gan soxol tey ji lan la yëg man ji fii laay jàngee oustaz bi sama xarit la naayim bi doon wax ni sama nit la ma fiy ñëw mu may gis oustaz bi xale yi tamit daara ji ñu miin ma lool nag xam ma wax dëgg yàlla ma yàgg fee ñëw di jëflante ak ñoom teraanga di jëflante ak seen oustaz teraanga kon loolu des nekkul tey la la première fois dëgg yàlla ñu baax lool nag yaatal ma ma fiy jàngee xam-xam yu bëri ñu nekk ay mag mais jox ma cër nag waaw dëgg yàlla moo tax ne sama première édition bi fii ci Dakar ma defee ko fii nii si si si si Pikine si daara bu ñëw daara Oustaz Sall jàkkaarloo agence Free bi wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax a baax kontaan nañu. comme maanaam léegi dañ lay bàyyi dañ lay bàyyi nga dem joxe ji ndog bi ànd ci ak na ñi jaamu ci yàlla. incha allah kontaan nañu merci yal nañu ko te doon yu bëree bëri. tey jii pare nañ fi ñu ngi dem wane ci ñi nga xamante ni noonu lay joxe ndog bi. incha allahu rabbi lépp ci biir salaam Vision ñu ngi dem nag war leen nga xamante ni moom la ko préparé. waaw kon maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen waa Salam TV di nuyu ñu fekk ñëpp vraiment di nuyu la grande dame ñu fekk aussi muy def li nga xamante ni vraiment social la jëmale ko ci daara yi mu nekk lu acte bu rafet boo xamante ni ñëpp war nañ ko magnifier moo ànd ak euh, suma coordinateur nekk officier d'état civil fii si commune de Djiddah Thiaroye Kaw ñu koy moom sax moo waroon jël kàddu mais comme affaire dafa xat ma ne naa ko yóbbaale rek ñëw fi nag ci turu monsieur le maire Modou Gueye euh, ci turu Modou Mati Niang nga xamante ne moom moo topp ci moom nekk adjoint mu dénk ko lépp loo xamante ne mooy jëm ci wàllu social wàllu finance yooyu mu am nag ay yóbbante yu ñu joxoon maanaam jëm ci wàllu suukar xeeb na ko loolu trop nag mais comme affaire dafa xat te démb la ñu ko wax ñu noonu dañuy jaar rek def si suñu participation mu nekk loo xamante ne xeeb nañ ko loolu nag waaw suukar saa ngi ne ci biir xam naa après di ngeen ko filmer mu nekk ay mu nekk suukar boo xamante ne vraiment suukar bu bu mokk la tamit euh, mën na fa tur daal mën na fa tur waaw loolu daal vraiment moo fi indi du politique du dara nag parce que ñun sax suñu bopp dañoo jaar ci daara suñuy bàyyi dugal ñu daara ñu ñu xam lu nekk ci daara donc lu ñu def rek dañ ko def ngir xale yi di ko ngir yàlla mais wàllu politique du wàllu dara kii tey nekk maire nitu daara la donc lu mu def ci daara rek maanaam dafa dafa delloo mbaat ci booy booy wa di gërëmaat waa Salam Vision bu baax a baax di wax ne leen nag xam nga yóbbante moom dafa diis waaw nañ fi lu huit sachets yu nga xamante ne yëpp yu cinq kilos la suukar mokk ñu ne woon dañ koy teg ci ndogu yi jàpp ne suñu suñu camarade bi suñu jigéen mi nga xamante ne vraiment moom it ñu koy ñaanal yàlla lépp li nga xamante ni mi ngi koy mbébét ci wàllu daara yi yàlla yombalal ko ko ba am ci ndam bi mu ci séentu xam naa bu dee tamit coordonnateur mën na cee sànni ñaari kàddu kon tamit. moom moom daanaka sax wax na lépp waaye nag teewul tamit dafa am benn kàddu goo xamante ni euh, da ko ci dolli rek parce que yaakaar naa ne wax waxaat taxul ñu ne wax na waaye jëfin ba rek ak tolluwaay ba. taxawaay bi nga xam yaay boo def na ko. waaw man je crois que sama camarade bi wax na lépp euh, Moussa Top di remercier aussi la dame la la dame de fer mais def naa lii boo ko defee euh, monsieur le maire nga ko defal parce que lépp luy dem si daara monsieur le maire. ku koy defal loolu rek bopp moom nga ko defalal quoi di ko remercier bu baax di wax yàlla na ko def ay déwéni déwéni déwéni déwéni yàlla gën la ko yombalal merci beaucoup. waaw waaw waaw ñu ngi dem si kiiwu ndogu bi séance ndogu bi comme je l'avais remercié à l'avance fekk ñoom accès guñu defe naa si interview bi si kër ga maa ngi lay naan j'ai reçu le soutien de mon maire de commune muy le maire Mamadou Gueye may réitéré sama collaboration ak moom mu nekk nag jeune bu baax bu dynamique nag par le biais de euh, euh, Mor Mati xam nga moom moom kenn du moom dëgg yàlla parce que comme li ñuy wax rek Mor mooy Modou Gueye mu nekk kilifa bu baax nag bu responsable nag bi mu yëgee sama bës bi lépp lu mu mën wax dëgg yàlla def na ko ci boobu ba léegi mi ngi may woo Amina Amina en plus dara gënul neex mu yow délégué ay nit ñu ñëw ci sama bés bi kon xam nga bés kenn nit kenn du ko xeebal bësam kon su ma xewlee sama mère yónnee si jël alalam ba pare def ci yónnee si ñoo taxaw xam nga kon man damay remercier Modou Gueye remercier moo mati mi nga xam ne moom euh, dëgg yàlla dañ leen di ñaanal ñu yàgg ci mairie bi euh, directeur bi ñu mujjee fal suñu maire muy directeur des impôts des domaines dañ koy ñaanal mu yokk ba ñuy dégg monsieur le ministre ndax ku baax la c'est un jeune dëgg yàlla may gërëm Moussa Top mi nag mu nekk DG nekk ku baax ku loyal tamit di gërëm la coordinateur bu dëgg yàlla tonton Alsaan ñoom tamit ñu nekk ñu loyal nekk ñu oyof ñu baax su ma demee dañuy collaborer ak man di waxtaan ak man mais dara gunul ne ñu jug ñoo même bu ñu andiwul woon dara dafa neex mais dañu andi boobu ba léegi ñi ngi andi ba tey jii gis nga bi ñuy ñëw ne dañuy àndaale pour la ñu yokk suukar bi bu suukar bi saful sans compte lañ ma njëkk jox xam nga bi ñu nekkee si kër ga déjà gërëm naa leen fekk sax ñëwaguñu kon loolu je le dis haut et fort j'ai xam nga l'appui de mon maire de ma commune au niveau de Djiddah Thiaroye Kaw je réitère mon engagement et mon collaboration envers eux di ñaan rek ñu liggéey pour le bien du pays parce que social bu ñu koy def maire la ñuy jàppale te xam nga amuñu loolu tamit suñu commune te ñun commune bi moo ñu ñor dëgg yàlla kontaan nañ bu baax merci beaucoup.